jàpp nañu daal ñàkkul muy déggante ki nga xam ne Mamour Diallo di nas yenn yi tey rek euh, ci xëti euh, am na ci bu ko ci xëyee waaye nag leneen ci lu ñeel coowal oto bu 80 millions nee nañ daal lees waxul am na ci lu ni mel ba waral ni euh, moo waral ñu teggi ko fa leneen di ñàkk maîtriser li nga xam ne nag mooy secteur boobu le ginnaaw bi mu demee ca seet seetal ba gi am na vidéo boo xam ne nekk ni ki démb mi ngi circuler jëmale ci moom ca ginnaaw ba ñu koy laaj ca na muy doxalee ONAS ak tamit fan la ne ñàkk maîtriser ca la euh, la mu ne est-ce que tey doonul li waral ñu teggi ko fa ba waral tey Walf Quotidien xëyee erreur de casting. bon merci man jàppuma mm, en réalité qu'il s'agisse euh, qu'il puisse s'agir d'une erreur de casting. Hmm. et parce que tamit euh, da ngay intéressé sur profilu Cheikh Dieng. Euh, nga xool jaar-jaaram nga xool li nga xam moo di domaine de compétence am mm-hmm. mënoo see génne li nga xam ne mooy secteur bi ñu ko dénkoon di euh, ONAS mm-hmm. donc euh, si lu bari jàpp naa ni si jàngam mm-hmm. si si li nga xam ne dund na ko si wàllu liggéey si organisation yu am solo à travers le monde yoo xam ne liggéey na ci jàpp ma ni effectivement lii di ONAS dina ko war a mën a jaaxal parce que tamit euh, ki ki mu wutu foofu di Mamour jàlloo ben c'est un ingénieur nu koy waxee see un c'est un inspecteur des impôts mhm. moo lañ fa lañ fa tabb te sori na ak domaine de compétence su ki nga xam ne moo di Cheikh Dieng euh, deuxième élément bi mooy mhm. li ñuy tudd naan euh, dañ koy dégg xawma coow loolu pour man ay waxu rumeur rumeur boo xam ne daal rumeuru presse la mhm. pour le moment si si ñenn ñu ko génne ndax dafa amoon ay xaw ma lëkkaloo ak Mamour Diallo. Mm. des trucs là je je man man du ma. Mm. du ma du ma du ma du ma taxaw si loolu quoi. parce que moom demandé woon nañu auditer pour man pour man loolu en attendant ñuy en attendant ñu si am lu leer pour man dama koy jàppee gu mu waxu mbedd. Mm. en réalité. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que ça ne repose sur aucune base. boo xam ne mm-hmm. da nga am euh, sur le plan de l'analyse objective di nga si war a mën a seppi lenn loo xam ne lu am solo la. leneen li moo di wax nañu mbirum oto je sais pas mun na nekk dëgg mun na bañ a nekk dëgg. Mhm. mais lépp solo ba ëpp solo moo di. Euh, que ni euh, lii dafay firndeel ni rek ñi jiite. Mhm. en réalité la ñuy wax ci jub jubal jubanti caaxaanuñu ci. cest à que président euh, Ousmane premier ministre Ousmane Sonko li waxoon daañu daañu daañu daañu daañu tabb nit ba nga xam ni suba keneen daañ ko bëgg tabb ci post bi ñoom ñiy wër. ba pare du ñu am ku ñu mën a tabb ndax ñëppay daw ndax rigueur bu ñu war a imposer donc loolu la ñuy njort ni en réalité il n'y a que cela maintenant il y a euh, nos confrères d'autres confrères qui ont titré colère de Touba par rapport ak inondation yi bon je ne pense pas si sama njort tamit parce que tamit diir bi gàtt na. Mhm. bi ngay yegg si pour en réalité trouver des solutions durables. Mhm. à la problématique de l' assainissement bi nga xam ne mi ngi fi depuis autant d' années. Mhm. te Touba dund ko euh, si at yu mujj yëpp ba ci màggalu daaw gis nga zone yu bari dafa inondé woon. donc euh, ce serait ça aurait été un miracle. que voilà du tac au tac. nit ki ñëw rek euh, ñëw ne d'une baguette magique rek néew ne ok créé naa situation boo xam ne inondation lay jeex secteur la boo xam ne c'est secteur euh, li mu laaj dafa bari te secteur bi mënoo ko ñu wax fii la ñu jëm. ak li la ñu am tànk defuñu audit. bu doy audit bu yaatu sur plan de plan décennal de lutte contre les inondations. bi nga xam ne dugal nañ si nee nañu daanaka lu toll si 700 milliards. il faut impérativement que cet audit la soit fait ñu xam yan zone la ñu euh, dugal xaalis. yan montant la ñu dugal fan la ñu toll si dugalum xaalis bi lan ak lan moo si jub lan ak lan moo si ñàkk jub il faut yooyu yëpp ñu régler ko. pourtant docteur Cheikh Dieng moom woon na audit ci li nga xam ne moo ñu la ONAS. pareegul woon wala sax tàmbaleeguñ woon. Mm-hmm. effectivement euh, te loolu dañ ko si si si li war a bokk la. Mm. parce que tamit secteur assainissement xam nañu c'est un secteur. à coup de mille à coup de milliards mhm. mhm. secteur la boo xam ne li ñu siy njort si corruption dafa bari. secteur la boo xam ne li ñu siy njort si détournement d'objectif dafa bari. secteur la boo xam ne li ñu siy surfacturation dafa bari. Mhm. donc il faut impérativement que ñu jëm si loolu maintenant c'est le président ki nomme à tous les postes civils militaires. moom mooy nommé tey oustaz tey premier août. ba pare le 5 août mu digg ko. donc bu ñuy xool rek li nga xam ne moo di yoon. Mhm. léegi nag euh, dañu naan ok le prochain premier adversaire ma ne su fekkee nag ku ñu dingi rek tey nga nekk nga nekk adversaire nguur gi la nommé woon. Mm. en réalité kon boog yow du woon liggéeyal sa réew moo la intéressé. Mm-hmm. lu la intéressé woon moo di post je pense qu'aujourd'hui tegg nañ la mhm. il n'est pas dit que tu ne seras plus nommé mhm. si mandat président Diomaye mhm. xëy na suupa dinañ la dugalaat feneen loo xam ne xëy na euh, daa ngi si mën a liggéey parce que commencé nañ naan c'est inélégant non mais y a pas d'élégance ou véritablement d'inélégance encore une fois le président quand il nomme est-ce que bu muy nommer c'était de l'élégance que de choisir mmh. telle personne mmh. on aurait pu dire non c'est pas élégant de choisir telle personne aurait été pour lui élégant que nga tànn oustaz mm. mais je dis une fois il n'y a pas d'élégance en matière d'État il n'y a mm. pas d'inélégance mm-hmm. en matière de, de de la gestion des affaires de l'État mm-hmm. xalaatuñu ni non mais écoute regarde-moi ce beau make-up de madame là mm-hmm. regarde-moi son beau greffage là etc non non c'est mën li nga war a mën a accomplir comme action par rapport aux résultats qui sont attendus c'est ça le plus important mm. léegi nag nit dina liggéey ba ñu naan noonu kii moom xam naa duñ ko teggi suba nga décret teggi ko mm. léegi les gens se disent mais comment se fait-il que nit kii doon def résultat ñu dingi ko mais c'est du ressort exclusif euh, également Bien du président donc mm. ay mm. élégance inélégance après trois mois après six mois après deux mois moo ci yem je crois bien qu'il y a que oui en tant que en tant que ministre. Mhm. am na ñoo xam ne nommé nañ leen ministre. Mhm. ñu nekk si poste boo xam ne la lañ fa toog moo gën a yées. Mhm. li fa li Cheikh Dieng toog. en sa qualité de directeur général. Euh, voilà donc pour man ce n'est pas la question la question est de savoir que ni. su fekkee ne c'est le problème de véhicule. là c'est un manquement grave. point voilà bu fekkee ne le problème de véhicule laa wax. te ñu bare moom la ñu junj. ce mhm. serait un manquement grave. Mhm. léegi nag leneen nag c'est du ressort encore une fois des autorités de choisir ni kii xëy na euh, xalaatoon nañu ni effectivement ni. lii doon nañ doon nañ ko yaakaar si moom xëy na gisuñu ko mm-hmm. si résultat bu gàtt yooyu yëpp mu ngi si mm-hmm. mais l'un dans l'autre encore une fois euh, c'est pour man c'est un limogeage comme tous les autres limogeages en attendant d'y voir beaucoup plus clair mënees nañu xaar rek ci carrière euh, politique am lii nii tey mën koo yàq ndax nag comme ni ñu ko yenn ci ay xët xëy rek nee na moom euh, poids lourd la ci banlieue bi am na ci doole loolu ginnaaw carrière politique bi nga xam ne amal na ko ak it. Euh, na mu doon doxee il faut relativiser. oui non il faut quand même qui est un poids lourd politique. Euh, au niveau de la banlieue est-ce que tey jii mën nga ko méngale poids lourd politique et dès lors que ni xëy na dirige na collectivité territoriale il a été candidat malheureux. Mmh. je bien à la ville. je mmh. sais plus. Mmh. Euh, quelque, voilà hein mm. mais aujourd'hui tu ne peux pas parler véritablement de poids lourd. Mm. tout en tout en occultant la présence du Parti démocratique sénégalais Bien. comme formation politique foofu mmh. tout en occultant la présence de l'Alliance pour la République comme formation politique foofu mmh. mais là là la personne de Cheikh Dieng liggéey na pour am une base politique une base une base électorale une mmh. base politique une base électorale mhm. mais encore une fois du point de vue du poids aujourd'hui mënoo ne c'est un poids lourd mhm. politique au niveau de la banlieue parce que tamit euh, l'affaire le dire non non le dire en réalité euh, ce serait en réalité comme nga ñëw rek nga ne bon euh, Birima Thior vers c'est le poids lourd de Fatick euh, le poids lourd de, <laughs> de politique de Fatick <laughs> ou de truc non non mm. je dis encore une fois c'est un homme politique que l'on bien mm. c'est un homme politique qui a fait son chemin. Mm -hmm. c'est un homme a été au parti démocratique sénégalais ba mu fay génn bay créer formation politique am. Mhm. il a été candidat déclaré musul jàll parrainage euh, mu dem jàppale coalition euh, Diomaye président. Mhm. donc je crois bien que il est très loin aujourd'hui de pouvoir affirmer que non c'est un poids lourd politique. Mhm. parce que amit poids lourd politique du lu ñuy caaxaane loo xam ne da nga naan euh, voilà nit ki il représente politiquement ba nga xam ne il est incontournable à tout point de vue. Euh, je, je pense que waruñ see yëkkati baat pour man balance bi daal fu ñu ko fu ñu ko teg ëpp na. par rapport ak li nga xam ne xam nañu nit ki. Mm-hmm. que ni mi ngi liggéey. Mm-hmm. mi ngi tabax. Mm-hmm. mi ngi am base. mi ngi koy mi ngi si liggéey. mais euh, euh, quant à affirmer que c'est un poids lourd politique. Mm. Euh, pour man du point de vue de la perception des na. par rapport ak li nga xam ne mooy la ñuy soxla en termes de représentativité. parce que tey nii un baragay ce qui représente. Euh, au niveau de Pikine au mhm. niveau de la banlieue est-ce que électoralement Cheikh Dieng représenté na ko si l'on sait que Bara aussi <laughs> depuis euh, autant d'années ñaata ñaata ñaata mandat mhm. mi ngi mi ngi nekk euh, zone di ko mhm. gagné comparativement ak par exemple Cheikh Dieng bi nga xam ne perte na zone bi nga xam ne moom la ko maire mi ngi première victime de Bassirou Diomaye Faye loolu la ñu bëri xëy titré ci Cheikh Dieng am na vidéo aussi boo xam ne mi ngi depuis démb ba tey ñu ngi koy wax naan euh, euh, c'était à Saint-Louis. c'était à Saint-Louis bi Ousmane Sonko demee foon yàggul dara. Euh, mu mel ni même ci vidéo boobu sax je pense que bien bu ñu defee bu ñu remonté tuuti Ousmane Sonko euh, laajte woon na ko ci visitam bi passé euh, mu defal ko benn rapport détaillé ci li nga xam ne moom moo di exécution financière mm-hmm. di projet d'assainissement ci yenn gox-goxaat yu nekk foofu ci Saint-Louis mm-hmm. bu montant bu tourné environ de 60 milliards de mm-hmm. francs CFA mu mel ni aussi si on se rappelle bien Cheikh Dieng su ma juumul était l'ancien maire de Djiddah Thiaroye Kao bien sûr donc on parle vraiment de poids politique moi je ne trouve pas un poids politique parce que man pour man cet acte là bi nga xam ne le nouveau régime posé na ko moi personnellement dama ko jàppee acte bu noble euh, non seulement mais dama ko jàppale un signal fort parce que man ci sama gëm-gëm man dama mës a gëm ni soxlawuñu nit ku am base politique on a besoin des personnes yoo xamante ni eh, dañu am expérience ci lu ñu nekk Euh, parce que dafa am yenn poste stratégique yoo xamante ni que ce soit muy poste ministère que ce soit muy poste direction soxlawuñu nit ki di am base politique on a besoin d'une personne compétente ku loxoom set koo xamante ni